sëriñ Massamba ñu ngi lay nuyu jaar ci yow sunu nuyoo mu àgg ci mboolem ñi nga xam ne ñuy déglu nuyoo bi ak ziyaar yi ni ñu teg ko ci kilifa jotaay bi mu jot lañu ko mbooleem ñi nga xam ne ni ñoom lañ sëqal askan bi ñoom lañ sëqal lislaam ji ñoom lañ sëqal njàngaleem sëriñ bi ni nga ko waxee ñu toll ci jamono yoo xam ne ni bokk na ci lañ koy gën a xàmmee mooy ne lii tàqale nit ñi day mel ne day gën di yokk xar-xar bi nekk ci diggante nit ñi day mel na day gën di yokk diggante population yi diggante par benn benn yi ba ci diggante ñi bokk jenn diine sax booy xool da ngay gis ne léegi li ñu wutee xar-xar boobu daf ciy gën di yokk te boo ko xooloon nag sabab bi dëgg-dëgg li cëpp mi ngi dellu ci kàddu goo xam ne nii jóg na fii wala mu jóg fële te mën naa am warutoon a jóg wala boog waxtuum jógam jotagutoon kàddu yu bari yu limu yooyu nga xam ne ni mooy jóg di jóg ci barab yu fasante bari na wuute yi am ci biir nit ñi te loolu moo koy indi ñu toll ci jamono joo xam nit dañuy wax ne jamono yu wax la ñëpp gëm ne ku nekk da ngaa war a daas saw làmmiñ di ko yëkkati foo toll bañ bëgg loo gëm loolu sax ne ku waxul da ngay ñàkk sa cër ba tax ku nekk lu sa yoon nekk da ca wax lu sa yoon newul da ca dugg wala boog loo xam da nga ca wax loo xamul da nga ca wax foo war a waxee da nga fa wax foo warta waxee da nga fa wax. bu ko defee lépp jaxasoo te moo ne kàddu googu rek moo koy indi waaye nag xëy na danañ am luñ laytaay jotaay bi te mooy it dafa am ku mag am dafa am benn waay boo xam ne nii dafa mas a toog ak kilifaam am lu koy jàmbat ne ko man daal damaa gis ne ndaje yi ñuy def di daje daa bari lool lool kilifa gi tontu ko ne ko kon danañ defum ndaje ngir jàngat ndaje yu bari mel na kon mais ndaje mu yokk ci ndaje lay doon. bu fekkee dañoo xam ne tam kàddu yi dafa bari wax ji dafa bari ñu ne nañ waxtaane wax ju bari yi day mel ne kon yàlla bu mu nekk wax ji ñëw yokk ca loolee waaye loolu lépp li muy tekk rek mooy ne dafa am yoo xam ne ni ay nit bu ñu dajee dafa mënta ñàkk bokk na ci li mënta ñàkk nag ay nit bu ñu dajee mooy kàddu di fa jóg wax di fa jóg ndax lépp lu defaru bokk wax bokk na ca la koy defar waaye te mën nga ne lépp lu yàqu la koy yàq wax ca la bokk moo tax wax nga ne kon lu mënta ñàkk la ci biir mbooloo mu mënti doon waaye nag bari na lu yàq ci biir mbooloo tam te moo koy yàq ni mu koy yàq nag mooy léeg-léegi ñu wax ko te jotut wala ñu wax ko fekk mu wees moo tax waxkat yi dañuy wax ne wax mas naa jooy benn bis ci misaal ñu laaj ko ne lu koy lu la jooyloo mu ne dañ maa wax te sama jamono jotut dañ maa waxe ci barab buñ ma war a waxe ñu ba loola jàll mu ñëw jooyaat ñu laaj ko lu la jooyloo mu ne. dañ ma wax te fekk waxtu yu ñu ma waroon a waxe jàll na ba noppi fañ ma waroon a waxee tam waxe wuñ ma ko moo tax wax mën mënta ñàkk ci biir mbooloo mu man ci doon ndax mooy defar lépp waaye nag dafa am barab ak jamono ak defin ak nuñ koy waxe ak fañ koy waxe moo tax kon ci kàddu ci la jaar ngir mën a defal lépp lu luñ bëgg a defar waaye itam lépp luñ bëgg a yàq ci la ñuy jaar ba yàq moo tax ñi ciy gis dañuy wax ne bala ngaa génne benn baat ci saw làmmiñ war ngaa wëndee sa làmmiñ si biir gémmiñ nangami yoon yu bare bari balaa baat bi génn ndax baat bi mi ngi mel ne balu fetal booy tiire rek balaa nga koo tiire war ngaa xoola xool ba mu wóor la tiire jot na te fi ngay tiire xam nga ko nga door a tiire waaye boo ko xasee tiire moom mënatoo koo téye naka noonu tam kàddu gi boo xasee jóge ci yow mënatoo waxee fexe la téye ko te la muy yàq mën naa bari loolu jafe-jafe bi nag ci kàddu tam day gën a fés ci jamono ji ñu toll gën a yaatu tasaaroo gi lu gën a yaatu yàq gën a yaatu te ku nekk xam na ne léegi jumtukaay yu xarala yi ñu jëfandikoo léegi mu jëm ci média beeg presse beeg ak yu mel noonu moom la ñuy jëfandikoo léegi ci tasaare kàddu yi tem gaaw ci lool te mën koo yaatal lool mën koo tasaare ci façon bu gaaw lool moo tax jumtukaay yu xarala dañ koy tuddee ñeenteelu doole cim réew ni doole dooley nguur ame dë amee doole cim réew doole yi atte amee ko fa doole yi yoonal amee ko fa jumtukaay yi itam noonu la amee doole cim réew ci jubbanti nit ñi teg leen ci yoon wala boog mu jubale leen foo xam ne nii ab safaan lay doon kon xëy na li ñuy war a waxtaane du ñàkk a wax waaye ni ñuy fexee ba kàddu gi di nekk benn pour kàddu gi nekk benn nag mu ngi tàmbalee ci ñu fexe ba suñuy jubluwaay nekk benn kon soxlawuñ tëj gémmiñ yi ndax fi mu nekk nii moom kenn mënut tëj gémmiñu nit ñi ubbiku na ba noppi te door tëju kon kay li ñu war a fexe mooy ba li ñuy wax wuute bañ cee feeñ mu bokk benn jubluwaay loolu nag lañu koy mën a may mooy ñu fexe ba fañ jublu nekk benn jubluwaay bu ko defee wax ji dana mën a nekk benn jubluwaay li gën a fës ci jamono ji te xëy na bokk na ci li tax ñu tànn thème bi mooy dafa am mbooloo yoo xam ne nii miinee wuñ leen woon ay wax mii niñ fa woon ay kàddu yu fay yu bari muy mbooloo yu mel ne sunu mbooloo yi wala boog mbooloo mu mel ne mbooloo mi topp ci gannaaw Serigne Touba radiyallahu anhu ñu leen tudde ay murit ñu gis nag ne ci jamono ji ñu toll nii xëy na kàddu yi jóg ci biir yoon wi bari na lool lool lool te léeg am ci yoo xam ne nii na muy jóge mën naa am mën naa am lu muy indi wala boog fa muy jóge waru faa jóge wala boog waxtu wañ koy jëkkati waru faa jóge ñu gis ne bari na loraange yu muy jur yu jural yoon wi yu baree bari moo tax jàpp ni waxtaane ko kon dana am solo ngir mën a xool lu sabab lu tax lu tax ñu dem ba mu yàgg ñu mel noonu mbooloo moo xam li ñu xamoon mooy genn kàddu mooy jóg ñi ci des ñëpp di ko jëfe lu tax ñu dem ba mu yàgg mbooloo moomee ay kàddu yu bari commencé caa jóg loolu war nañoo gëstu sabab bi bu ko defee jéem ko wutal fajtal balaa balaa fajtal di wees loolu mënta ñàkk ci mbir mu nekk tey àdduna mooy doxe noonu luy dox lu nekk day demam yàgg am yu bees yu ciy dugg yu bees yooyu ciy dugg nag dañuy toog waxtaane ko balaa ëppi loxo ñu mën ko saafara ngir mën a bañ àgg fa mu jëm danañ ci joxe misaal mu baree bari dañuy wax ne la képp koo gis ma naan yëf yi damaa bett mooy ko amatub seetlu waaye mbooloo moo mën dem boo dee xool na muy doxe dalay wóor ne dalay wóor ne lii bu ci ay pexe duggul ëllëg fële lañ jëm te dañ fi àgg loolu nag yow bu ñu fa àggee du la moo tax kon kàddu yu bari buy commencé jóg ci mbooloo moo xam ne mii newuñu leen loolu waroon noonu a fexe ba jàngat ko ba xam lu ko sabab ak it yan pexe lañ mën a jël ngir man koo fajtal ku nekk xam na ni sëriñ bi bi muy sos yoonu murit lum nos la xëy na ñenn ñi dañ jàpp ne murit amul organisation loolu mooy ñàkk xam njàngaleem sëñ bi sëñ bi kuy nos moo la dàq nos ni mu nosee yoonu murit nos bu xereñee la boo xam ne nii boo ko jàngatee la nga xam ne sëñ bi teg na ko ci yoon woo xam ne nii buñ ca tënkoon rek wuute du ci am mukk boo ko doon xool da ngay ni mel ne sëñ bi ni mu nosee yoonu murit mooy li ñuy wax forme pyramide forme pyramide mi ngi mel ne néegu ñax ni mu mel néegu ñax nga xam ne këru murit goo dem daanaka fekk fa li ñuy wax casse carré forme boobu mu am noonu la sëñ bi nosee yoonu murit mooy suuf gi day yaatu lool waaye looy gën di jëm ci kaw muy gën di sew ci ñun li ñu xam néegu ñax moom benn puj lay am du am ñaari puj kon boo jëmee ci kaw da ngay dem ba ca kaw ca njobaxtan la benn puj dong nga fay fekk kadaalika naka noonu yoonu murit yoonu murit benn sëriñ la am muy sëriñ Tuubaa boo demee ci kaw moom dong moo fa nekk ñi ci des ñëpp ay jëwriñ lañ ci bu ko defee nag bu ñu nee ba gisatuñ sëñ bi nag képp ku fi toogal sëñ bi yaay nekk puj bi yow dong yaay kilifa gi ñi ci des ñëpp ay jëwriñ lañ ci noonu la sëñ bi nos yoonu murid bu ko defee bu njëkk kàddu daan jóge ci puj bi bi di wàcc maanaam day jóge ci kilifa gi wàcc ci jawriñ yi ñëw ci base bi bu ko defee murid yi daal koy jëfe ndigal lu mënti doon moo xam ne ñu santaan moo xam ne ñu jot li la kaw lay jóge di wàcc ñëw ñu moom jëfe rek moo ci seen wartee kon néegu ñox noonu mu amee ay balgaan am ko ay gayet yeeg yu mel noonu yooyu mooy jëwriñ ji ci yoonu murid ko defee puj bi nag benn la te mooy sëñ bi sëñ bi nekk benn ci yoonu murid ñi ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp te di leen siyaara di leen ndokkeel di leen balu ak di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ginnaaw loolu ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp di ci jiital sëriñ Serigne bu soobee bu soobee ngaaj mi nga xam ne moo teewee jataayu sëriñ bu soobee di kilifa bu soobee yépp waaye di nuyu tamit sëriñ Baara bu Bousso mi nga xam ne moo mag ci njabootu maam sëriñ Saa Bousso ak sunu kilifa yi fi teew yépp di sëriñ Modou Naar Bousso ak sëriñ Amdi Moustapha Bousso ak mboolem ñi nga xam ne ay waajur lañ daal te teew fi ak ñi nga xam ne ay mag lañ ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel ci seen bisub maam bi nga xam ne moom lañ teewe di leen nuyu tamit di nuyu mboolem membre yi mu muassasatu saxaafatul islamiyya li usratil Busoobi ñi nga xam ne ñépp ñoo aju ci mbooloo moomu nga xam ne moo lëkkalee sëti sëriñ Busoobi Buso yi ak sëriñ Saabuso di mbooloo moo xam ne euh, jàpp naa ne biñ ko soseeg léegi léegi mat ñaar fukki at li ci aju weesuwul jokk ak bokk ak dundal ndono ak sàmm suñu diggante ci li ñu yàlla boole muy ak mbokk te kenn mënu cee dem bàyyi sa morom ndax kenn ku beru rek ku beru ku nekk rek kenn ngay doon soo ñëwee ci mbokk yi doo ko doon mbooloo kon suñu borom moo ñu digal ñu sàmm kon li ci jiitu mooy loolu mu doon loo xam ne wax dëgg ñépp la ñor ñépp ñépp la ñor ndax résultat yi nga xam ne def na ko tax na nag ngir liggéey bi nga xam ne am na wàll goo xam ne dénk nañ ko bureau bi te secrétariat bi di ko coordonné muy lu aju ci lépp loo xam ne mooy participation yu aju ci mbooloo yi muy waa kër Serigne Bousso bi ak waa kër Serigne Sa Bousso muy waa kër Serigne Bousso ak waa kër Serigne Sa ñi nga xam ne yónnee woon nañu leen ay leetar ngir ñu indi seeni àddiyee ci bis bi ñoom la ñuy tudd waaye dañuy jiital kilifa yi nga xam ne euh, dañoo jàpp ci liggéey bi ci bis bi ngir mu mën a sotti laata loolu it dana am lu ñu leeral ci ci màggalu ren gi xam ngeen ne daaw dañu ko jëlaloon ren ji tamit bi ñuy laata xam am ndigal lu leer ci màggal gi ak léegi daanaka matul fukki fan wala lu ko yées kon loolu waajtaay wi yeex na lool ba tax na bokk yi ñooy ay jàmbaar rek ba tax mu demee nii waaye mënoon naa gën a gën a kii sax waaye teewul lépp lépp lépp lépp jaar na yoon incha allah macha allah xam naa ne incha allah rabbi bu tuur bii bu màggal gi jàllee ci tuur bii di ñëw danañu def benn réunion boo xam ne balaa tuur bi dana danañu leeral waneen tëraliin wala waneen waxtaan woo xam ne danañ ko gën a doxale mbooloo mi ak màggal gi ak it gën koo nos ba gën a yaatal liggéey bi ba nga xam ne dana gën a euh, weesu fii mu nekk kilifa yi nga xam ne nag jàpp nañ ci bis bi ki ci jiitu mooy Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifa général de Mouride sëriñ bi yabaloon na fa ay ndaw ñu dem fa euh, mu joxe ndigal ci bis bi ba noppi jëfam jiitu ci jëf ju am solo ba noppi yabal fi ndaw cheikh sëriñ cheikh abdul latif mu teewal ko fi ñu ngi koy ñaanal di ko sant su borom yàggal ko fi te wéral ko niki noonu tamit soppe maam astawaalo mbàkke ñu koy wax sëriñ sa njaay yàgg naa jëf ci bis bi jëf na ko it nam ko daa jëfe wax dëgg yàlla indi fi teraanga ak euh, lu jëm ci bis bi loo xam ne ñi nga xam ne fekkoon nañ bi mu indi jëf ji ñoom ñëpp seere nañ muy lu am solo ci bis bi ki noonu sëriñ maam sëriñ Bousso moom sëriñ Seex Bousso moom sëriñ Seex Bousso oustaz ku ku jàmbaare ci mbooloo bi moom it euh, yónnee na fi addiyam sëriñ Abo Sall Guédé sëriñ Abo Sall di bay faalu waa Bousso bi moom it euh, jàpp na ci bis bi loolu ni ko doon tamit suñu bàyyi sëriñ am di Moustapha Bousso mu sëriñ Omar jëmb di xalifa sëriñ Omar moom it wax dëgg eh, joxe na àddee ñu am solo ci bis bi ñi nga xam ne nag moom lay moom lay bëgg lim ci kanam dafa am commission boo xam ne bureau bi dañ koo taxawaloon ñu doon dem ci kilifa yi nga xam ne ay mbokk lañu te bokk ci mbooloo mi te doon ñu ràññee ci ci ak mbaax ngir leeral leen bis bi ñu ñu jëf ci jëfin wu am solo commission boobu nag euh, sëriñ Jile Bousso Abdoul Wadoud doon ko coordonné ak sëriñ Babacar Mbacke ak ñi ko àndal ñoom it wax dëgg ñu taxaw taxawaay bu am solo ci liggéey bi ba indi résultat bu am solo bokk yi nga xam ne dem nañ ca nag ñu jox leen ay addiye bu ñu gisee image yi wala ñu dégg son bi ñu xam ne jëf ji agsi na wax nañ ma bu baax a baax it taxawaay yi nga xam ne bokk yi taxaw nañ ci mën nañ cee ràññee koo xam ne ci ñun la bokk di sëriñ Abdourahman Ñang di moom xalifa sëriñ Baara Ñang teewal fi tamit soxna bu so moom sëriñ bu bi doon ku mbokk gi ñor waaye tamit saa su bis bi ñëwee bu ñu fa demee du ko waaj day daal di génne addi ju am solo jox ko te kenn ku nekk xam na ne ci teewaayu tuuru yeeg ndaje yeeg yooyu yëpp kenn mënu ko ci ci lépp loo xam ne moo aju ci ci askan wi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal jëf ji mi jëf ci bokk ngir yàlla suñu boroom gën ko ko gën ko koo gën koo fay. niki noonu euh, commission bi dem nañ ci sëriñ Mourtada Mbacke moom Cheikh Mahmoudul Fadal moom it kenn ku nekk xam na digganteem ak askanu Mbusoobe ci ni ni ni ni leen askan ni ko askan wi ñore ak ni mu ciy dàkkee seen bëgg-bëgg ngir liggéeyal ci bàyyam Cheikh Mahmoudul Fadal. ba am na bis boo xam ne sax da koy jagleel askan wi ngir di leen fowoo ngal moom sëñ Murtala mu sëñ Fall ñoom it waa commission bi nee nañ jëf nañ ci jëf ju am solo ni ki sëriñ Abdou Jaxate sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Cheikh Jaxate moom it ci mbooloo mi la bokk ndax sëtu sëriñ Cheikhu la moom it at mu jot su fa commission bi demee dañ ciy jëf jëf ju am solo sëriñ am sëtu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu moom it kenn ku nekk xam na ne ci sëtu sëriñ bu soobee la suñu am satu mbàkke moom sëriñ Sohayb moom it wax dëgg jëf na ci bis bi jëf ju am solo ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm euh, sëriñ Abdou Lahad Ka maire di maire Touba moom tamit wax dëgg at mu jot da ciy taxaw ren jii tamit taxaw na ci taxawaay bu raw ba mu ci daa taxaw ci bis bi ci jëf ji jëf ju am solo joo xam ne euh, ñu ngi koy seereel suñu kilifa yi ne agsi na sëriñ Jiili Mbàkke moom sëriñ Saaliwu sëriñ Jiili Mbàkke moom sëñ Saaliwu eh, kenn ku nekk xam na moom it digganteem ak askan wi moom it yónnee na fi addiye yi ju ama am solo ju am solo niki noonu tamit meeru dëkk bi di sëriñ Abdou Mbàkke Ndaw di meeru Mbàkke moom tamit indi na addiyam jaarale ko ci suñu masàmb bu sum si Abdou Salaam agsi na ci mbooloo mi ñu ngi koy sant di ko gërëm di gën a dolli ay cantam moom it ci taxawaayam ci njabootu sëriñ Bousso bi ak sëriñ Saabus ndax daggoon na fee ci wetu barab bi ci soow terrain buy kër gu rëy rëy goo xam ne bokk na ci naale sëriñ bi bu barab bi àggee nga xam ne danañ fa mën a am defal kër sëriñ Bousso bi bu mag ak jàkka te moom moo ko dagg terrain yi joxe ko foofu moom sëñ Abdou Mbacke ndaw kon ñi ñi ngi fàttaliku loolu te di ko ci sant di ko gërëm moom meeru Mbacke koy sant bu baax a baax di ko gërëm kilifa yi ma doon lim ñooñu mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ci bis bi te participer ci bu baax a baax a baax. maa ngi nuyu mbokk fekk yépp di ci jiital sëñ Moussa bi Bousso ak mboolem njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gépp Xaadimu Rasuul kàddu yi nag du gudd yu gàtt lay bi ci njëkk. mooy sant yàlla di sant suñu bokk yi ñu àndaloon yépp doon jóg suba ak ngoon guddi ak bëccëg ba kër sëñ Tuubaa gi sotti ndax yàgg nañ cee dox yàgg cee wax wante bis bi sëñ Tuubaa Cheikh Mamadou Muntaxa ñëwale boppam ci la lépp sotti beneen bi ci des ñu gis ne sinu maam Serigne Mbusoobe wares na ko wutal bërëb bu yaatu fii ci Mbàkke mu doonoon suñu yéen ñu ciy dox ba mu sotti ñu jël juróom-ñetti parcelle yoo xamante yu dëpp loola jagleel xam naa bala maa jóge fii dangeen may booleek ñaar ñoo xam ñooy ànd dem njaareem toppatoo ji kayit yi ak plan yi ba mu génn ñu jébal ko sëñ bi te li ca doy waar li ca gën caa xéwale ñetti bërëb yi dafa am lu doy waar ci am bu njëkk bi mooy kër Cheikh Amadou Bamba gi kenn umpalewul ne bërëm bërëbam la woon jóge fa dem Daaru Salaam ma jàpp ni stade bañ ñu fa defoon bu fa nekk doon dañ ko loti sa joxe kon bu fa nekkee rek dafa mel ne loolu téye bërëb ba ba ko war a def yegg si def beneen bi ci toppit fi ñu jagle sëñ bu soobee xam naa bu sorewut ak fam nekkoon it bu dut foofu it sorewut ba am na lu fa ne benn bis la ci sama xel dem ma ñëw di ko saytu fekk dara newu fa te lotissé nañ ko depuis 1985 loolu it ñu ne kon nañ gaaw teg ci loxo jagleel ko bala caa keneen a teg loxo wante it moom beneen loo bu mu dendal bu kenn nekkul ñu nañ ko jagleel Maam jaar Jaara borom saam ñoom ñaar ñu dend loolu nag mooy li nga xamante mooy li war a ne ndax dëkk bii day dëkk Serigne Touba te bu ñu liggéeyee ba Touba ak Mbacké di yëkkateendoo di tegandoo ñu xam ne ñaari commune lañu wante benn communauté genn kilifa muy Xaadimu Rasuul lépp dana dox loolu nag moo moo jig dëkk bi kon ñu ngi ñaan seen borom mu dajale waat ñu fi ne gën déwén te kenn bañu ñu ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf bokki jullit yi fi teew yëpp bokki taalibe yi fi teew yëpp ñu ngi leen nuyu te di leen sant di leen jot li ay kàddu yu jóge ci bàyyi sëriñ Sow mi nga xam ne <coughs> mooy kilifa njabootu Mboussobé gépp bi tey di ñaan yàlla yàggal ci loolu wéroon mu dend ak mbokkam yi sëriñ Baara Bousso di njaboot njabootu sëriñ Saa Bousso gépp moom itam yi sant mboole mbokk fi teew yëpp góor ak jigéen nag ak ndaw di sant mboolem waa mu assase bi yëpp ci taxawaay bi nga taxaw nañu ko ak yitte ji nga xam ne am nañu ko ba taxawal lii ñu taxawal muy dox ba ak fii mu nekk farata joo xam ne yàlla ko santaane muy dox ak bokk te doom gu jafe ci jamono jii te waroon na yomb lool kon nag lii fursa la ci dox ak bokk kon ñi ngi sant itam mboolem bokk yëpp nag képp koo xam ne kii taxaw na ci bisi bi ak nu mu ci taxawee rek ak wàllu mu ñu ci jàpp rek sant ñu ko baax di ko gërëm mbooleem commission yi tëdd loolu yëpp kenn ku ci ne dox sa wàll lan ko war a doxe ñu ngi leen sant te di gërëm bu baax te leen ñaanal ñu dajee si ak ngërëmu Sëriñ Tuuba di soññee rek ci bis bi di xam ne ne ren ni ko si ëpp daal waxee rek mooy xaw naa bette ak jamono ji fi mu toll rek moo tax mu demee nii waaye incha allah fas na yéene bu jàggatee gën koo yaatal gën koo waajal ba nañu ko bëggee mu war a toll mu toll ko incha ku ne xam na ne jamono ji fi mu toll nag yitte yi ni mu demee ak xataay bi ni mu demee ak euh, yi fi yi fi jaaroon ci ay ay gàllankoor loolu rek moo indi lii ndax daaw defuñu ko woon sax waaye kon ñu xam ne ne insha allahu taala ñoo ngi soññeewaat mboolem bokk yëpp mboolem kër sët yëpp mboolem njaboot yëpp ñu jàpp ne bis bi kenn ku nekk jàpp ne sa bisu bopp la bu kenn jàpp ne dama ci wàll si wala damay dimbalee si wala damay dañ ma invité ba di ci ñëw ñi fii ñëw ñëpp dañ cee bokk kenn ku ne jàpp ne man maa ko war a woote su baaxee man naa ko baaxal su baax su doxut man naa ko mu dox kon loolu lañ war a jàpp suñ ko fasee kon léppay dox incha allah kon daal ñu ngi ñaan rek bokk yëpp gën cee jàpp gën cee taxawaat di ñaan mbooleem kilif yi suñ kilif yi fi nekk di suñu waajur yi suñu nijaay yi suñu bàyyi ak suñu mag yi rek yëpp yàlla sàmmalam te musal leen te yàgg leen te rajo seen Tuubaa te ñu àggale seen yéen yëpp ndax ñëpp seen yéene lu baax rek la nit nag bu yéene lu baax dañuy ñaan seen yéene àgg ndax kenn ku ne mënoo ko ñaanal la mu bëgg lépp ndax xamoo ko waaye nag bu ñaanee kenn ku ne sa yéene àgg yàlla na yëpp yàgg fi bàyyi ñëpp ci daraja bi ñu ngi nuyu bokki jullit yi fi teew yëpp nuyu bokki taalibe yi ak koy sëñ Bousso lool ànd ak wér ak tal ak jàppandal ñu ngi ko ñaanalee Cheikh Mamadou Moustapha ndax ay kilifa leen yu tubaarka la yu mat sëkk kilifa se jiital ak cant yi nag Cheikh eh, Sëñ Tuubaa Sëñ Muntaxa jëf juum jëf ci bis bi ca yàgg koo jëf ñu yëkkul tey bis bi ñor na ko lool saa su ko yëgee waxtu wane rek la ci war lépp la ko ci war lépp def na ko ci kon nag na nga ko ñaan moom itam mu yàgg koo def mu yàgg fekk at sëñ sëñ Gousso Gousso li ko ci war lépp ni ko ci def li ci jiitu jógee fa mu nekk bagage sore lool mënoon naa yëb la rek bu yëb la itam te te xam ne am na ngànt waaye dafa jéem a ñëwul boppam ndax xam ne kër gi kërama mooy ñoo ngi koy ñaanal lool ànd ak wér ñu ko xoolee bët yi sunu maam sëñ Gousso bi tey nuyu itam monsieur le maire ne set la ci sëñ bi sant ndaw jàpp ndaw ko ndaa waaye ndaw ko ndaa bi tey day lim nu andil moom mel ne ne daal euh, bis bi yëpp baax na ndax li mu andi muy kër sëñ Bousso bi gi fii ndax buñ nee ne Bousso bi sëñ sëñ Tuubaa rafaatal lu ko sëñ Bousso bi kon bu sëñ Mbàkke bu sëñ bu kër fii mu fàggal ko mu am kër ci sorewuñu Seyole fa mu nekkoon loolu day ab liggéey la bu rëy nag kiim ci maire bi xam naa daal sant ndaw rek di sunub sët nag waaye daal tey de moom jëf na moom it noo ko ñaan bu baax te it wax dëgg yàlla it jiitu na it lii mu def ci kër gi ndax armée Mbuso bi it ni mu ci liggéey it lépp yëg nañu waaye nag di jëf ca xam fa ngay jëfee loolu rek am solo jëf du baax moom foo ko def yàlla fay la waaye nag am na fu mu ëppate ak fay kon nag moom it noo ko ci sant bu baax te di ko ñaanal ci loolu mu wax it ba commission bi sàkk nañu ñu ñu koy war a booleel mu toppatoo kayit yëpp loolu ni ni mu waxee kër bu baax la bu yaatu lay doon na ñaan yàlla yàlla dimbali nu itam nag ñu def ñu liggéey ko ba mu mel na war a mel yàlla na yàlla may wér may may sëñ bii sëñ sëñ busoo bi busoo ak wér may noo ko nun ñëpp moo xam ay doom la moo xam ay sët la moo xam taalibe la ñu am kàttanu léegi ko ba mu mel na war a mel bëri ah loolu de xaw ma ko ah yooyu loolu di jëf ji àggal dëgg loolu dëgg yàlla la yàlla yàlla mooy itam noonu mu def ci mbirum mbirum sëñ sëñ Bousso bi sëñ Bousso bi ku mm, ah, sant bu baax de ndax am na ñu la fi ci loolu loolu yi amu fi woon kon amee ci yow nag ku jëf ñu ne la jaajëf ñu ngi lay jaajëfal ci turu bi sëñ baa nga lay jaajëfal di la ñaar bu baax nag ndax loolu moom dafa rëy lool ñépp la ñoroon ñépp la ñoroon wax dëgg yàlla ñaan yàlla kon nun defoon eh, sëñ bi ak nun ak nun ñëpp ñoom kat nu mën ko liggéey ba mel ne war a mel waaw armée naaw itam ne itam tubaarkal la ah moom kat dafa sant ndaw rek di sunub sët waaye nu nu jàmbaar rek ah ñu mën ne jëfinu jëfinu jàmbaar dëgg la de ngi koy ñaan nag li tax mu def ko rek eh, ci dara ji ki tax mu def ki tax mu def ko rek yàlla yàlla jàppal ay mbiram mm. muy sant yi te bokk yëpp bokki ju bokki mbusoo bi bokki mbakke ñëpp ñu fi teew ak ñi teewul ci am yéeni teew fi nan bokk ñaanal nag su suñu ñaari suñu ñaari kilifa yi rek li ma waxoon rek sëñ Muntaxa Mbakke ñu ko ñaan mu yàgg fi lool ànd ak wér ak tal ci ba moom moom li ñu koy ñaanal daal mooy wér nda jos nag fàggul na ko boppam naka la ko fàggale boppam nag mooy eh, ku ne xam na ko ku ne xam ne ne lii mu yore eh, séentu wu ko woon waaye fàgg woon na lool xam ne ba mu egsee ci moom rek eh, léppam rek mën a mën a kii jox nañ noonu ay kilifaam yëpp ab cër ba cër bees ci moom tey kon nag la ci nag moom li koy ñaan mu am wér-gu-yaram rek ñu bokk yàlla moom la ci lépp mbiram dana jàpp ne insha allahu moom ko ñaan te xam naa bu baax lu baax rek la bëgg xanaa lu xanaa lu mu yëgul nag nit nag loo yëg waaye lu mu yëg ci lu baax la ci ma la ko ci wax lépp dana ko def nu ko ñaari suñ suñ suñ kilifa gi itam mooy mooy mooy ñoom ñaar ñu bokk fi yàgg lool kii àggale nit si Ahmadou Bamba kii àggale nit suñu Bousso bi ñu bokk ànd moo ñoom ñu ànd koo ñoom ñoom yëpp rek salaamaaleykum wa rahmatulah. rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe bi seetaan ak di diglu fu ñu mën a nekk ci àdduna bi tey jii ñu ngi nekkoon ci bis bi nga xam ne bis bu màgg la ci bis bu tedd boo xam ne moom la ñu fàttaliku sunu maam yu tedd yooyu di bu Boussobé ak mbokkam ma Serigne Sa ak mboolem njabootu bu Boussobé yëpp naka jekk ni ñu ko baaxoo defee saa yu ñu gàmmoo ba dellu si tey jii ñu xëy nekk fii ci mbakke Bawal yandu fee ci Masaalikul Jinaan ba ñu xëyee jàng nañ alquran yu bari ak ay xasida ak ay salaatu ala nabi def ay berne ci ngoon gi def nañ aw waxtaan wu am solo boo xam ni thème bi yaakaar naa ñi ko diglu ñëpp ñu seetaan ko dana jariñ ndax actualité la boo xam ne nii euh, bu baax la ci suñu mbokk sëriñ Fadilou Bousso Ansane doon ko def bañ fa jógee nag mbooloo mépp àndoon ñëw fii ci barabu sëriñ bu soobe ak suñu Mamour jaara nga xam ne pàkk bi ñu nekk sëriñ Touba ci moo fi nekkoon jëli lu wax maam Cheikh Rafal mu dem naawel jëli sëriñ Bousso bi mu ñëwee mu dem sanc Darou Salaam rafatale ko barab bi ñu nekk fii tey àndandoo ak mbokk yi ñu àndal yëpp ci fii ñu ko denc nii mooy jàkka ji nga xam ne moom la nekkoon ci biir kër gi moom sëriñ Bousso bi mboo ay mbokk yu baax yu bëree bëree bëri sëriñ bi daan joxe ndigal yi mu nekkee njaare ñu indi leen denc fii mu waxoon ne diggante bu Bousso ak Maam Mor Jaara képp ku ñu fa denc malaaka yi xamuñ ko duñ la kon loolu di lu am solo loo xam ne tey bu ñu fi ñëwee and fekk mbokk yi baax yi danañ dig sëriñ Bousso bi Bousso doomi sëriñ Maxtaar Bousso la moom sëriñ Afia Bousso moom sëriñ Bousso bi nekk imaam ci Paris kon ñuy déglu ko. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax yàlla defee nu ànd teewee bis bu màgg bi nga xam ne bisu xéewal mucc la di sant yàlla bu baax ci boole gi ñu boole ak sëriñ Bousso bi mi nga xam ne. bu yoonu murit wala lislaam doonoon garab ci réew mi dañuy wax ne mooy dàtt bi kon yàlla mi ñu ci boole noo koy sant di sant Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moonu jox kàttan ban man lii nu man tey ndax bari na askan woo xam ne lii bëgg nañ ko waaye lu leen dajale amuñ ko Sëriñ Tuubaa nag moo nu dajal ñun ñëpp ba lu nu bëgg a def rek def ko kon noo ngi sant bu baax di sant yàlla yit ci daje gi ñu dajale bis bi ndax mën nañu ñëw ba demit duñ ko fekkee mm-hmm. loolu xéewal ci ñun waaye xéewal ci képp ku fi ñëw it kon li may njëkk a def mooy sant sama bokk yi nga xam ne ñoom ñu organiser bis bi ndax lu war ñëpp bu ko ñeen teewee bu ko ñenn taxawee ñooñu sant war na ci ñëpp ñu defal leen ko kon noo ngi leen di sant sëñ Mourtala bu baax ak sëñ Abdou Lahad ak mbokk yi ngeen ko seqal yëpp ci taxaw gi ngeen taxaw ba bis bi mel nii tey di sant euh, sunu kilifa yi fi teew sunu baay yi di xalifa sëriñ Bousso be sëriñ Bousso Bousso ñoo ngi koy ñaanam yàgg fi lool te wér ak sëñ Amdi ak xalifa sëñ euh, euh, sëñ Saa Bousso sëñ Baara ñoom ñëpp teew fi rafetal bis bi lool kon rek nu xam ne noonu njaboot gi nu xam ne li fi mag ñi liggéeyoon te mooy lislaam jëm ci kanam ba tax nu ñi ñëpp tey sànq dafa am ku naan imaam ma ne ko imaam moom juru fee tudd ndax fii koo fi njëkk a gis rek ci mbusoo bi koo fi gis rek jàppale imaam la kon moom loolu moom loolu rek doy nag cant yàlla ndax képp koo xam ne euh, way jure na la ca lam la nàmmat lépp lislaam rek la ba fépp fuñ la gisee xel dem ci yàlla lépp lu baax lu ñuy def xel dem ci yow ak foo mën a nekk ñii mënuñ leen a fay sunu maam yi mënuñ leen a fay kon ñu leen di ñaanal rek yàlla yokk liñ yërmande ci noonu njaboot gi fi nekk ñëpp képp ku bokk ci sëñ bu ak sëñ Saa ak képp ku bokk ci Seexul Xadim yàlla may la xel mu rafet ba lépp li ngay def ak lépp li ngay wax nga ciy sóoraal ne ndono nga yor ndono nag kenn waru ko yàq ndax da ko war a joxaat ñeneen kon ñu sàmm loolu bañ a dugg ci lenn loo xam ne warul jaaduwul ndax kat loo xam ne dañu ko dénk dong moomoo ko boo fi jógee da nga ko war a jox ñeneen kon yal nañu yàlla defal ñu sàmm ndono loolu di ñaan yàlla ñu teewaat koy ati at ci lépp luñ fi ñaan rek eh, yàlla dëppale ko la gën ci ñun kon noo ngi sant mbokk yëpp di siyaare ñëpp jërë jëf.